xam nga suñu politique de prix moom wax nañ ci affaire subvention yi lu bari waaye nag mun nañ wax ne am na malgré que conjoncture bi défavorable na suñu politique de prix bi quand fexe nañ ba du diis torop ci population yi ndax subvention bi ci état bi di def gasoil day mu ngi waroon a jar ci dernier prix yi ñu yi commission bi nga xam ne dafa autonome wax 927 francs CFA loolu la waroon a jar waaye ñu ngi koy jëndee 755 francs maanaam litre gasoil boo jënd rek litre gasoil bu ñu jënd rek 172 francs yi moom état bi subventionné

état bi def na ci 891 essence Europe ministère de la pêche jaar na fi mu ngi war a jar 750 francs ñu ngi koy jaaye 497 francs lu ñu ci jënd rek état bi def na ci 253 francs buñ demee nag ci njëgu dund bi suukar prix réel bi ko état bu ci état defuloon subvention huit cent francs la ñu ngi koy jaayee six cent cinquante donc état bi def na ci cent cinquante francs buñ jëlee ceeb bi mu ngi war a jar quatre cent cinquante ñu koy jaayee trois cent vingt cinq par kilo état bi def na ci cent vingt cinq mburu mi nag trois cent vingt cinq la normalement prix bi mu ngi jar cent soixante quinze état bi def na ci cent cinquante francs loolu nag day wane ne état bi mu ngi subventionné ak doole njëgu énergie bi njëgu électricité bi njëgu gasoil bi ak denrée de première nécessité mais il est bon aussi de rappeler que les subventions au secteur de l'énergie ont coûté 755 milliards en 2022 et vont continuer de nous coûter 600 milliards cette année. On était à 556 milliards la fois passée, ça a augmenté. Et en 2024, effectivement, on prévoit dans le projet de budget 2024 215 milliards. Cette baisse, on l'explique très par le fait il pourrait y avoir une détente sur les prix des hydrocarbures. Mais quand on faisait le budget, on n'avait pas prévu le conflit, effectivement, le conflit actuellement au niveau du Moyen-Orient. Donc si éventuellement il y avait une augmentation des coûts mondiaux sur l'énergie, ce budget serait réajusté à la hausse. C'est important. Mais aussi, il faut retenir que nous, avions, nous avons mis en place sur le plan administratif au ministère des Finances une brigade mixte de contrôle composée d'agents des douanes et des impôts. Cette brigade mixte est en train de procéder à des enquêtes de terrain, à faire les vérifications nécessaires. La brigade mixte ne contrôle pas uniquement les subventions aux denrées, les subventions énergétiques, mais également les subventions au niveau des denrées de première nécessité. Mais, mesdames et le projet de loi de finances 2024, pour vous dire que cette politique de subvention est amplifiée, 602,73 milliards de subventions sont prévues dans le projet de loi de finances 2024. On les a passées en revue. Je vais en citer quelques. Les intrants agricoles, 100 milliards. L'importation de génies gestantes, milliards au niveau du trésor public. Ces considérations générales, j'avais prévu que ça me prenne au moins 30 minutes pour pouvoir dire, parce qu'il était important que les honorables députés sachent qu'est-ce qui a été voté durant de 2012 à 2022 et où est-ce que on a mis l'argent tant sur le plan financier sur le plan physique. Maintenant, le budget 2024